par rapport à la euh, visite euh, président de la République Kédougou man je je suis man wax dama dama ci àndul noonu yëpp parce que franchement parlant c'est est li ñu doon xaar ci en 12 ans il y a def euh, ci président de la République du Sénégal ñëw na fi conseil département conseil présidentiel en 2014 Il a fi ay ay promesses yu bëri yu fi def mais pratiquement dara dara dara dara dara sottiwul à part hôpital régional bi ak yoonu Salémata bi ça vraiment dafa néew lool lool lool ci li xaar ci wax dëgg fa yàlla te man wax dëgg fa yàlla conseil bi euh, visite euh, économique man je préfère appeler ça visite politique oui ça c'est typique typiquement politique à quatre mois des élections c'est c'est politique te man li ma son poulain Amadou Ba qui est le le candidat de de il devait l'être ce dernier rek qui def campagne mo gën mou koy gongé fum nek instant ça ce n'est pas du du visite du visite euh, économique c'est juste une visite politique là.